Mariam Amar moom lañuy ñuy léegi moo tax seen seen message bi liñ ma bëgg a gëmloo ni test bi ki nga xam ne mooy aadama moo ko bind man loolu mënuma ko gëm parce que ñoom mënuñoo jël kee sëy na ba tas sëy na ba tas mook seex bi jeex na seen sëy jeex na te ñoom ni ngi wax ni ba léegi alal ji alal ji seex bi bàyyi doom ji kër ga nekk doomu Mariam Amar moo ko moom Mariam Amar moo nekk kër ga nekk mbuur kon Mariam amaar ba léegi moom moo téye alalu alalu alalu Seex Amar léegi ñu ni kër ga nekk France la turam nekkoon ci turu ci turu Cheikh Amar kon Cheikh Amar alalam ji yëpp mën nañu wax ni ci turu Marème Marème Amar la nekk ñu ni kër googu ki nga xam ne mooy Adama da koo jaay lu njëgu 3 millions 200 millions la indil ki nga xam ne moom mooy Cheikh Amar maanaam ñoom seen wax man lu tax mu lu tax wóoluwuma leen ba ni damay indi cas bi parce que ñoom wóoluwuma leen wóoluwuma leen ni ñoom seetuñu ci liñ leen di wax. ci ma jàngat surtout ñu ci ci test bi liñ bind man gëm naa ko sama xel mu gàtt topp maa ngi lay dégg continuer waaw waaw léegi léegi maa ma ne laa wax ma ne lu tax ma gëm test bi ñoom sëg seen wax bi yëpp dañuy protéger ki nga xam ne mooy Marème Amar ñu ngi may gëmloo ni ñoom ñu ngi may gëmloo mi ndaw si nga xam ne mooy Adama Silla pexe yi li muy def maam dafa bëgg a taxaw ci alalu Cheikh Amar te ñoom li ñu lim lépp ki xam ne ni moom mooy Adama Silla ni xam ne moom jabaram lañ la wax sama jabaram la xuma mais amul kër yi ñu lim yëpp kër ci turu Marème Amar la nekk muy kër gi nekk Mbuur kër gi Cheikh Amar dëkk. parce que kër gi Cheikh dëkk doomu Marème Amar moo ci nekk turu ma ci nekk kër gi nekk Mbuur doomu Marème amaar moo euh, turu Marème Amar a ci nekk kon bu ñu bëgg bu fekkee ni dañoo bëgg a wax ni ke mooy motif bi dafa bëgg a taxaw ci alaw alalu alalu euh, euh, Cheikh Amar man loolu mënu ma ko gëm loo tax man ni man ñii wóolu ma leen kon lu ñu wax man gëm ko kon faaw ma faaw ma ñëw fii ma wax fi kaa bi Sénégalais yëpp dégg ko que ni Cheikh Amar. Mhm. test bi ñu wax man gëm naa ko ñu bind fi léegi ci biir nag ñu ngi may commencé ñu ngi doon wax naan léegi dañ la jox numéro ndaw si ba envoyé ma nañ ma xam ne mooy Adama numéro Adama ni ñu ma mi ngi nii soo bëggee mën naa ko lire lire sëñ bi nga dégg numéro bi. non non non bul bul bul lire léegi du ma ko lire dagg léegi foofu ñu wax ni ma léegi message ndaw si. ni ko li ñu sant ci buuba ak kadeer dinañ ko def man leen man xam ko ma message. non xaar xaar xaar kan moo la jox numéro jabari Cheikh Amar kan moo la ko jox. Euh, ki nga xam ne mooy délégué moo ma jox numéro parce que ñoom dañ ma gëmloo ni ndaw si moom moo def loolu léegi jëlal numéro bi nga message ko. wax ko ni ko li ñu sant. xaaral ma laaj xaaral. Ah. parce waaw am na lu ci leeru waaye délégué mm. Amar moo la jox numéro jabaru Cheikh Amar yow. waaw. ok léegi bi mu la ko joxee lan la la sant pour nga def ko. dañ dama dama wax ni la dama wax ni ma wo bindu ko message ni ko li nga sant li ma sant boog li ma di bind ci message bi dinañ ko def danaa ko def waaye danga may fay. foofu buuba mi ngi naan sax mi ngi naan ndaw si milliardaire la boo ko laajee dix millions sax dan la ko jox. loolu lu li wax nii. waaw. dafa nekk ci ojo wala après bi ngi leen enregistré la ko wax. mi ngi ci audio bi. ok. mi ngi ci audio bi. ok man leen man ki ma bind xam ma ko. mënumaa wax déew ma bind ndax missage bi ma jot amul tur amul numéro parce que telegram man nga bind missage du am tur du am numéro parce que man xam ma sax turu kooku man tama yaakaar ni Cheikh Amar Mariam Amar laa daan dégg ah, déggaatuma beneen tur bu ngeen ni wax nii bi ma coupé nag. laa ne ñii man wóoluwuma leen quoi parce que ni ñu waxee nii ñoom ni ñu wax lépp ñi ngi kartal ñi ngi kartal ki xam ne mooy Marème Amar te message bi liñ ciy bind mooy ki nga xam ne mooy buuba ak Kader Ndiaye pion lañ pion Marème Amar lañ ci kër Cheikh Amar bu ngeen fàttali ko li ma liir ci commencement ba bu dee yéen doon dégg bu baax moo tax mënumaa gëm seen message léegi ñu ngi may ruux pour ma songu ndaw see pour ñu pour pour ndaw si di ma envoyé man ma leen koy delloo. Mm-hmm. ok. yaa may dégg bu baax. bu baax maa ngi lay déglu bu baax a baax. ci foofu nag. ñu ngi may eh, ki nga xam ne mooy délégué woo na ma fi ñaari yoon man lu tax du bugg bëggoon ma ko wan ñu ko li ngeen wax gëm ma ko dama bëggoon mu jox ma Kader parce que dañuy Kader day ñëw ma bëgg xaar ba Kader ñëw waxam ñëw su ko defee ma xam dëgg-dëgg coup bi ni muy demee mais Kader jutuma wo uh-huh. moo tax na ma ni kon affaire bi lu nekkul loo xam ne nii lu lu yomb la man daal wóoluwuma wóoluwuma ñoom wóoluwuma leen ci saxamaar. ok léegi yow mutuel mutuel. d'accord que sa explication bi bu bul génnee sa micro de mutuel rek kon dama lay wàcce explication dafa am lu ci leeru hmm. wax ji dafa jaxasoo. non mutuel rek yow mutuel rek man maay wax ak suma ay nit yow waxatuma ak yow yow mutuel rek. donc sa explication dafa des leer. dafa am lu jaxasoo audio bi leerul dafa am loo tëb mais li leer mooy délégué Amar moo la woo loolu leer na ñaareel ba tegu ci moo wax ak yow jox la buuba sëfaru Cheikh Amar loolu leer na ñetteel ba délégué Amar moo la jox numéro jabaru seex Amar loolu tam leer na ñeenteel ba li délégué Amar wax ci internet bi boobu tam leer na lii moom leer na lu dul lii nag ay ay dut la léegi xaar leneen tam leer na ci audio bi wax ne ne dañuy fay am zozo ak Adamo yow it nga ne den may fay donc léegi man am naa délégué Amar ci ligne bi safaru Cheikh Amar dina ñëw non man maa tëjoon son bi parce que délégué moo ma woo ma di ko laaj dafa bëgg ma jël ko ci kaw wala ma jël ko ci suuf ndax nit su la woowee da nga war a xam dafa war a dem kaw walla suuf léegi nag délégué laay jël moom mu expliquer su ma paree ma laaj ko. su ma paree ma indi safaru Cheikh Amar mu expliquer ma laaj ko su ma paree ma résumer suma xalaat parce que waa ji li mu wax am na dëgg yu leer nañ ba ku ko dégg xam ne dëgg la am na ojo yu mu teg xaw ma nu mu demee parce que leerul ci man résumé bi tam dafay dem ba mu yàgg mu jàdd daal mel ni kuy football ci ngelaw donc délégué ñëw na chauffeur bi dina ñëw ñun ñu mën a xam dañun suñ yoon nekku ci mais dañuy topp ba mu sës délégué nuyu naa la noo def mais maa ngi lay siyaar bu baax waaye jëwriñ. waaw delloo naka mu. ñu ngi sant rek. ndax yow ndax yaa ngi doon déglu live bi wala dégluwoo ko. dañ ma woo téléphone. waaw. ne ma am na ku nekk ci live Cheikh Ahmed bi di wax da ngeen koo woo xaw ma affaire yooyu ci laa commencé dugg nag mais fi ma toll ci moom mooy. bi muy wax naan dañ koo paas Amara ay a ngi dégg yéen a ngi man damaa toog ñu woo ma téléphone benn numéro France. Mhm. Cheikh Ahmed xaaral ma génne numéro bi ma woo. numéro baa ngi nii numéro France la. waa ji daf maa woo ba sonn jotuma. numéro bi lan la. déglu audio. numéro Paris la 33. 33. non 30 300. Euh, xaaral ma yónnee la ko. yónnee ma numéro bi. xaaral ma yónnee la ko. yaa ngi dégg. maa ngi déglu waaw. fekk gain bi woo na ma ba soomi jotuma. Mhm. léegi bi ma ko bu dégloo ko joom mu ni ma délégué man na xaw ma diw mos nañ daje soirée fana fan ma ne ko mu ni ma woo ma ma woo ko ñu ni ma Lille Pro moo ko jox sama numéro Lille Pro xam nga Lille Pro. Lille Pro xam naa ko nit ku baax. moo ko jox sama numéro léegi mu ni dafa am. gaayen bu woo mooy waa ji dugg di wax nii nee kooku moo mm-hmm. ko moom kay dafa waroon enregistré lépp nag ne dafa am ku ko envoyé ay message mm-hmm. yu jëm ci Bouba Seck ak Kader ak Marie ak ay doomam. waa mm-hmm. waa ji moom wax dëgg ma ne ko ah mu ni nee na ñooñu dañoo nekk di complot pour rey Cheikh Amar nii may waxee yow. inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. xam xam nga laa tontu waa xaw ma loo ko tontu de. dama ni ko. waaw. buuba moomu de jëmmam ji moo a gënal sama jëmm ji ci Amar. allahu akbar. ndax leer na. waaw li nga wax nii leer na. bu mhm. keneen jaay ba muy ànd ak Cheikh Amar douze la am. moo feex ñu màggandoo fowandoo defandoo lépp yaa ngi dégg. waaw. mu ni ma léegi xaaral ma dugal waa ci appel bi. Mhm. waa ji dugg. commencé wax di wax naan waaw dañoo envoyé. baal ma baal ma délégué soo waxee waa ji ci appel bi waa ji mooy kan topp kaa. ndox ki nekk pare naa doon wax moo ma woo ba pare. ki nekk Paris baal ma baal ma rek ki nekk non baal ma ki nekk Paris xam nga turam wala xamoo turam. xaw ma ko ok léegi may ma baal ma foofu baal ma numéro bi nga ma jox du namo du numéro Paris numéro Italie la. Italie waaw moom waaw Italie ok léegi continuer. moom la ko ok léegi borom numéro Italie bi ngay wax waaye soo ne bi pour nga wax. waaw borom numéro Italie bi ñoo wax ba ba mu wax ma loolu. Uh-huh. ma tontu ko baat yooyu ne ko Bouba Seck moomu ngay wax noonu. Uh-huh. jëmmam moo ma gënal sama jëmm ji ci Cheikh Amar. Uh-huh. mu ne ah ma ne ko ah man ma la xam naa ko après ci la dugal gain ma ne ko dugalal gain mu dugal bi mooy ki euh, waa ji nekk ci sa bi nii wax. mooy topp kaa. waaw. léegi waa ji na am lu lu ñu lu ñu ko envoyé message. loo xam ne dañ cee tudd turu Cheikh Amar ne Bouba Seck ak Kader Ndiaye ak Marie Amar dañ waaj a rey Cheikh Amar. dañu waaj a dem Paris en même temps dañu waaj a dem Paris en même temps te foofu ma topp kaa xaw ma grand ma message bi kan moo ko bind. mais moom waroon na ma bi ma ko bi mu ne ma ku naan aadama si laa ma ma envoyé message. waroon na ko wax ci laay wala mu wax jooju kii naa fekk la de nga baal ma. bu bu dee. na <laughs> dem rek nañ dem. dinaa teg lépp xaaral xaaral wala ma wàccee la. yow miital wala ma wàccee la. waaw miital grand. kii. maa ngi dégg bu baax du ma kii Cheikh Ahmed la a ci li nga nekk. Cheikh Ahmed <laughs> ma ne ko maa ngi déglu Cheikh Ahmed grand mu ne ma ma ne ko. est-ce que xam nga ni ñi ma tudd nii ñëpp wax ko wax ko ñooñu fi ñu jaar ak grand ba pare moom ci boppam. Mm-hmm. après man ko lii jërum nga ma koy wax xoolal daa am fu ma nekk nii may ma tuuti ma dem kër grand bi ci boppam woo la def la demee lii ñëpp toog nga nga wax. Mm-hmm. loolu laa ko wax ci laaj bi. non loolu nga ko wax ci appel bi def ci appel bi appel à trois la quoi. Mm-hmm. léegi fekk man damaa waroon a dem kër gi. mais damaa amoon rendez-vous fii ci gendarmerie foire bi. parce que dama damaa yee woon gis ay appelu sukkay nag ak appelu grand bi yooyu noonu te jour boobu moom laa toog doon def interview kii dafaa ñëw kii kan. Adama Adama Sylla dafaa ñëw indi fa ay grand bi. Mhm, mhm. ngi nii laa jëm fii ma fii nekk nii bu ma fi jógee fa jëm. soo waxee soo waxee grand bi Cheikh Amar ngay wax pour pour nan day xam. waaw grand ok grand bi lañ koy wax mhm, ma sa téléphone léegi ma yegg. def la meeliwul buuba toog kader toog ñoom Abdou mi nga xam ne ñooy doomi mari toog grand bi toog lépp leer ma def noonu dem kër grand bi fekk kader dem ñibbi ma fekk fa sukkay na buuba après maa woo buuba sax mu ñëw ndax buuba dafa demoon këram pour julli ji ay timisar yooyu maa ko woo mu ñëw bi ma grand bi pour waa kër gi toog mu ni ma su ma sañoon li may a bala ma ko wax ñi ñu tudd ci message yi toog ma ne ko ah ñooñu de ñëwaguñ kon xaaral ma woo boobu mu ñëw ci laa woo boobu mu ñëw boobu bi mu ñu yéeg ci kaw néegu mm-hmm. ma ki nga xam ne moo ma woo te nekk France ci appel bi ñun jox buuba téléphone bi léegi ñoom lépp lu ñu waxat buuba foofu ah. waaw. nañ xam ne buuba am na enregistrement bi tamit. Uh-huh. te te grand baa ngi toog ci lalam maa ngi toog ci sees bi bu baa ngi toog ci sees bi waa ji di wax li ci message yi ba ni message yi nga xam ne daa concerné kii di Kader moom amul ci respect pour di ko wax fii ci ci ci ci ci kanamu grand bi. te wax waaw moom wax na loolu. fii ci live bi li nga wax nii wax na ko. voilà léegi mu ni li nga xam ne mooy Marie Amar tamit du ma ko ma ne ko xoolal bàyyi ba suba suba kay di Kader wàllu Kader moom daal ba suba ndax dinaa fi ñëwaat woo nga jox ko buuba mu waxat buuba lu mel ni midi mm-hmm. Mm-hmm. buuba nag dugal ko mu leeral lu bëri li nga xam ne wax na kaan moom ndax fi mu ne du teew ñuy nataal. waaw non non buuba dina waxal boppam buuba dina waxal boppam. léegi léegi yéen ci ngeen paas Cheikh Amar topp ka ci lañ ko ak ak ci ñoom trois lañ woon ñaar lañ woon ak. Euh, ok maanaam léegi léegi bi ngeen waxee ak toppkat ci ngeen yëkkati téléphone bi jox ko Cheikh Amar mu wax ak ñoom ñaar. bi waxee ba pare ci kanam grand bi. waaw. bi dafa jël téléphone bi hmm, ne leen ngeen def bàyyi leen ci jàmm ñu ne ko grand yow amal jàmm rek grand bi tegal leen ci lépp lu buuba miy wax dëgg la barke leen alxuraan. Mhm. grand bi moo ne lépp lu ñuy wax dëgg la bu dee na ñaari silmaat bi nañ ko de ñu naan ay waaye Cheikh Ahmad laa mi wala daan moot ay garab yi mu bàyyi bàyyi ñu Cheikh soo si duggee dafay mel ni géwél buy wax géram Cheikh Amar baax na sa xarit la may ma ma baalal ma ñëw léegi ci affaire enregistré appel beeg yooyu sa explication fii la ci yem wala am na leneen loo loo bëgg a ci li nga doon expliquer lu jëm ci wàllu appel bi nga fekkee yow am na loo ci bëgga a leeral wala fii nga ci yem. non loolu buuba dina ko boo dugalee buuba dina. non non buuba buuba la maanaam yow yow en tant que délégué lii nga ci xam looy leeral. ok après bi ma génnee kër grand bi ndax dama ne ko bu ma jógee kër grand bi naa la woo. Hmm. parce que moom moom moom bi ñu ma wooyee xam nga lan la wax. Hmm. ñun ñun yàq deru Cheikh Amar ndax dafa def rafet ci réew mi loolu de. Hmm. benn ki nekk Italie bi ma woowee loolu la ma wax ma kontaan ci nag lool comprendre nga. Mhm. loolu sax indi confiance su di wax ak moom téléphone man ku ma woo ay téléphone yi sax du ma jot ndax bi mu tuddee Cheikh Amar sax looloo tax may wax ak moom téléphone yaa ngi mhm. bi ma paree ma woo ko appel dugg sama oto ñuy wax man ko mais grand message yi nga wax nii dafa doy waar de. tudd na ba tudd buuba deux mille dix neuf ba Cheikh Amar di def accident di def màggalu Sëñ Abdou Khadre mooy bi oto bi doon daw trois cent quatre vingt cinq kilo kilo heure. xam nga bi ma ko waaj wax moom mii xam nga bi ma ko waxee topp kaa bi ma ko waxee wax. déedéet ko de. c' est impossible ku fii ba Touba mënoo fee daw trois cent à l'heure c' est impossible. ma ko oto boobu li waral soog bi ma ne ko boobu oto Serigne Saliou woon taawu si Amad. Uh-huh. mu nekk rance sport bu bële. bi Serigne bi tawal ba ci rond point Mamel bi mu yëg rond point bi. quart mhm. bi am problème faar bi topp ci diggante boobu Serigne Saliou génn àdduna 2017 yaa ngi dégg. Mhm. léegi bi Serigne Saliou génnee àdduna gannaaw bi jël oto bi defar ko bi gannaaw bi defaree oto bi nag yàlla dogal gannaaw bi am na benn moo moo maay bag la yoroon maay bag. ba léegi ma ngi oto boobu maay ba ma wax naa leen ko moom su fekkee enregistrement yi dina ko teg loolu war na cee génn ma ne ko grand bi yor maay ba gaare oto bi ñëw mu ne baal ma yóbbu oto sëñ Saliou bi daal moom buuba duudu Bamba ànd ci oto bi grand bi jël teg ci oto bi parce que da doon ziare ci màggalu sëñ naa euh, tey la lan lundi mardi bii mooy màggalu sëñ Abdou Khadir ci la grand bi di dellu si waat ma ne ko oto bi xam na lan moo waral mu këpp mu ma ne ko du ay daw alër du ay daw nangam oto bi dañ ko yóbboon ci mécanicien ñuy defar cardan bi cardan bi ñi ko doon defar seere wuñ boulon yi kan la raw de bi di daw ba pneu bi déboîté Cheikh Ahmed boo duggee ci internet bi boo dundee bi soog Cheikh Ahmed bi dañ lay wan cardan bi ak pneu bi ñoo làng nga xam ne lii dafa déboîté ndax amul jàppul looloo waral oto bi këpp yaa ngi dégg. Mm-hmm. ne ko nag ma ne ko tegal ko ci ne ko ndimbalu Serigne nag moo tax kenn faatuwul ci oto ba ci ñoom. ok loolu leer na mais après sa communication ak waa ji yow ko ah. tuddal benn jabaru Cheikh Amar ne moo nekk ci ginnaaw li wala tuddoo moom moo ko wax ne eh, déedéet a wax loolu na gis moom moo njëkk wax ne Adama Sylla moo ko yónnee affaire bu mu tukkee rek bu pare. Eh, eh, topp kaa waaw bu mu coupé ma taxaw ma teg audio yi audio audio audio laay teg audio. déglu leen délégué xaaral tegal audio bu mu wàcc bu mu wàcc. non du wàcc délégué du daw du daw loolu tegal a xaaral ma avance ko xaaral mu yegg fu ma fu ma leen waxee ni man xam ma xam ma daa wax ni dama ne dama ni xam ma dama ne man maa wax xaaral diw la rek. Hmm. mais loolu kër la kër moo tax mari am. ñu ngi lay gërëm métti gërëm maanaam bu ma bu ma def laay bu ma tudd bu ma bu ma tudd dara. xam na deux cent na deux cent di leen ji ngeen ko parce que. yii mën na cee génne dix millions. yii mën na cee génne yii mën na cee génne dix millions ah, parce que nga Cheikh yàlla parce que. waaw tamit doo bi damay damay indi damay indi sa audio yi ni ma koy day day day rek. xaaral tuuti bàyyil délégué waxaale yow nga déglu say hmm. audio. bi soxla bu ñëwee. nga génnee sa miit nga wax ak ma jël délégué mu continue délégué baal ma dama bësoon benn affaire soo ko bësee kenn du dégg aha délégué. waaw allo donc kon man li ma bëgg a comprendre mooy yow tuddoo benn jabaru Cheikh Amar moom waa ji moo tudd jabaru Cheikh Amar. waaw loolu man loolu la waroon teg nag gis nga gis nga nit ba xanaa waa ji nekk Italie ba ma doon woo sax. li waa ji dugg nii ci appel bi di di kii loolu la def naan kii doom kii xaw ma jabar ko xamul non comprendre lu ma quoi ki nekk état bi moo suma question bi mooy su fekkee dégg nga. nga baal ma. yow tuddoo benn jabaru Cheikh Amar moom moo tudd jabaru Cheikh Amar. waaye Cheikh Ahmed moom ci boppam. Mhm. moo wax message nekkul naan Adama si laa moo ko yónnee. moo tax man ñun ko yow lii bul def dara daal ma dem ba kër grand ñu toog foofu yaatal lépp mu leer. ok moo tax bu am fii sax di wax wax laa jàppee. ok léegi léegi moom dafa. moom moom moom toppkat dafa wax mu ne yow yaa ko jox numéro Adama Sylla pour mu woo ko. na génne sama benn numéro bu ko joxee numéro boobu. ok léegi léegi yow da nga wax sànq nga ne. Euh, buuba am na audio yi mën naa jot audio yi ci boobu wala mënuma ci jot. waaw woo ko woon buuba. ok beneen bi tamit numéro ni mu ne ni mu ne xaw ma ne maa ko envoyé numéro xaw ma man numéro arrêté si laa xam nga ñaaw supprimé pour te dire vrai. Mhm. ba ma porté ko ok kon yéen jot ngeen a yegg ci porte plainte. non yàgg na. yow kii waaye yow kii porte plainte yi magu Cheikh Amar yaayu Cheikh Amar yow kii waaye yow gannaaw bi ne ko ñun duñu du ko ñuy fay ñuy nekk di yàq der ci internet bi de dégg ok yow lan nga bëggoon ban ban kàddu nga a daanalee. non dama ni. Mhm. ñun duñu ko ñuy fay ci internet ñuy yàq nit ñun duñ def loolu moom mooy góor yàppataat ñu koy fay mu yàq nit. dëgg la. comprendre nga. comprendre nga bi ma bi ma nekkee sama doon nee naa ko sax grand bi. xam naa dina dina la jéem a jox dara ndax lii ngeen def geste bu rafet la parce que dañuy yàq deru nit ngeen ne ko lii ko nangu loolu ñu wax Cheikh Ahmed. ok bu baax ko garaane lii nga def nii lii nga def nii kontaan naa ci wax dëgg yàlla ndax bu fekkee ne que dañoo dégg turu turu Cheikh Amar ngeen lijjanti sama numéro ba woo ma wax dëgg yàlla am naa ci mbégte ñu ni ma ki nekk Italie ne ma man du ma musa nangu ñuy wax Cheikh Amar lu ñaaw ci wala ñu koy def lu ñaaw ndax liggéey ko ci réew mi. ma ne leen kontaan naa lool wax dëgg yàlla am naa ci mbégte kon moom bu mu ñëw fii di di di di yàq téléphone mu xam waaw baax na kontaan naa ak délégué thank you so much. ñun ñu ngi ci réew mi nee ñu ngi ci réew mi Sénégal gii luñ bëgg a wax fii lañ koy a def daw ñu defuñu daara ñu ngi fii toog. dëgg la délégué. am Cheikh Amar day jël ay ñun ñoo jox Cheikh ni Cheikh Amar waxee yow Cheikh Amar mos naa dégg Cheikh Amar muy wax yow. man kay su ma yoon nekk ci man xaw ma ci lu bëri. baatu Cheikh Amar gis nga baatu Cheikh Amar benn la ci Sénégal. délégué boo duggee ci Cheikh Amar fi la ñuy yendu ndax daaneel nga sa kàddu wala <laughs> def na. waaw parce que kii dafa maa yëngal quoi kii benn. délégué yow da ngay dem da ngay xaar topp pare nga ci audio bi ñu doon visité. maa ngi déglu maa ngi déglu yegg. capture naa envoyé bi dinaa la wan envoyé bi ma envoyé lépp même envoyé bi ñu ma envoyé numéro bi capture naa ko dinaa la wan li ñu ma envoyé numéro bi yëpp. non non non topp topp. waaw bësal accord. su fekkee ne. am nga envoyé bi la envoyé numéro bi. capture laa ko def. ñu ma ko envoyé. sama numéro ñëpp dégg. waaw 78 471 57 01 yónnee ma ko ma montré ko ci live bi pour wane ne. waaw bind leen bind leen bind leen commentaire ma jël ko. 78 471 57 01 mooy suma numéro man parce que loolu dama ko bëgg a topp yow da nga tuumaal délégué ci nit